jërë ngeen jëf mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen jaajëfal di leen jox seen wàcc waaye bu baax a baax di leen wax ne tey nag ñoo ngi ci émission mag bi nga xamante ni mooy jàmmaarloo waaye xaw naa am lu ma fàtte tuuti mais gaaw naa bàyyi <laughs> na mu dem tey nag ma dala fi ñaari xale yoo xamante ni mooy dox ci diggante Mbagnick Kaïré ak ki nga xamante nii mooy baaba jaxal tey ñoom ñaar laa invité bëgg waxtaan ak ñoom ci làmb bëgg waxtaan ak ñoom seen carrière ndax ay xale la yoo xamante ni ku ci wax sa palmarès euh, donte ay xale lañ mais ñoo ngi wane seen bopp ci làmb ñoo ngi wane seen bopp ci waaw bi nga xamante ni moom lañ nekk di ko bay ma bàyyi leen ñu nuyoo ñu doog a wéyal waxtaan wi Baba nuyu naa la. lay fay ginnaaw ma sant yàlla jëlu si yéen bi. Mhm. Eh, di sant sama ñaari waajur di sama yaay yàlla na fekkee sama njëriñ. sama yaay yàlla na fekkee sama njëriñ. sama yaay na fekkee sama njëriñ. su ma si jógee may nuyu kenn sama sëriñ sama wasi la maam Ceerno Baabul Laahi Baabul Jannati borom si ko di ko ñaan yàlla na fi yàgg te wér di nuyu sama jëriñ Lamine Kane mu nga xam ne moom la fi borom daaru teg mu jiite daaray sam-sam mm-hmm. su ma si jógee di nuyu fu mu dëkk ak sama gox fu ma juddoo muy sam-sam un deux trois di nuyu waa guy ga jaamu gan tëli maam jaar sama kër yaay xam di nuyu waa axlu làmb di nuyu buun yëmbal Kër Massar ñi nga xam ne dañuy bëggee Baba Jaxal suma ma fa jógee di waa salle ba nga xam ne foofu lay entraîné di nuyu sama coach Codé ak euh, Moustapha ak secrétaire bi maa ngi koy nuyu ñoom ñëpp ak sama grand sama grand bébé maa ngi koy nuyu bu baax a baax moom jàpp nañ mu ngi may jàppale may entraîné salle bi salle mu ngi tudd amitié fitness waa salle bi ñu ñëpp ma leen di bëggee ñu dox a si kanam. su gudd na de. waaw nuyoo nuyoo la rek parce que nitu jaamu da ngay nitu jaamu da nuyoo. Hmm. te jaamu mooy jaamu yàlla. te maa ngi dëkk fii nga xam ne muy jaamu gën. te jaamu kese eh, fa ñun ah, am sam-sam laa dëkk. te boo boo demee màq ñëw di nga indi ndoxu sam-sam. <laughs> voilà. li ngay def nii man de baabu ma sax nag. nuyu naa la. maa lay fay. naa ma sant yàlla julli seen sant sama ñaari waajur hmm. di sant grand yi fi toog yëpp bébé julle wës jàmbaar waa wasaar yëpp waa Medina ma jógee Derkele Cité Marine Fass Gueule Tapée Colobane waa Kër Ndiaye waa Tëngéej di nuyu ñëpp di nuyu ñoom Baba Diaw ak waa canal 4 bi ak Tafatine bu Kër Ndiaye la woo di nuyu bu baax a baax. Hmm. doo nuyu sa waay. waaw di nuyu Baba Jaxal. xel day fàttali eh, non nuyonte nañ ba ñu doog a dugg si. Eh. léegi yow fan nga ma toppee laa bëgg a xam. man kii laa waxal na nuyu kay moom nuyu na la <laughs> point fay ko ñu ñu ñu wéyal leneen. mbër maa lay fay. di la ñaanal jàmm. yàlla dalal ak jàmm <laughs> gis ngeen mbokk yi tey ñoom ñaar laa dalal bëgg waxtaan ak ñoom ci làmb ndax mbokk yi bu ñu xool kii li nga xamante nii mooy Baba Diakhal moo ngi ci moo ngi ci sept combats euh, cinq victoire nee benn bi sans verdict la ak benn defet ci ay waxam. waaye nag jàpp naa ne ñaari défaite la waaye moom dafay bañ loolu. Ah. Euh, maa ngi kii di Mbagnick moom tamit moo ngi ci ñaata neuf combats ak dix. dix combats moo ngi dix combats deux défaites ak euh, huit victoire ci la toll mais Baba. waaw. ana waa ana waa ana waa waa jàmm gën ana ñu. waaw waa sam-sam ñu ngi fa surtout ñooñu waa sam-sam ak are mañinga bu nga xam ne foofu laay toog foofu laa dëkk di nuyu mañinga daa wéree di mooy dofi bañ tuddee ak are mañinga di ko nuyu di nuyu waa sam-sam beeg jàmm gën beeg. guy ga li ngay li ngay diw sa suufu bët loolu lan xaw ma sax man gars yi ñoo may jox rek. ainsi baabaa fi nekk mais su ma nekkee si laamu wëndeeg mi mooy ñëw. li ngay li ngay lok tam bëgg naa xam lu mu doon. ma sax dañ ma naan am. ay limon la wala lan. non xaw ma sax la bu doon limon la ma ne limon mais xaw ma lan la quoi. da nga li lu mu doon. xaw ma yi ñoom la. Eh, ainsi su ma nekkee fii baabaa fi mais su ma nekkee si laam wu bi mooy ñëw. bu mag bi. sama benn grand nee nañ baaba doolan. waaw loola sama grand bi rek laa koy sant Ibou Ndaw. lu lu loo noo koy waxee. ah lu si kanam rawu lu bari. <laughs> doo ci jaar. non dama si jaar comme que damay bañ di wax li nga xam ne mooy loolu. tam ah, wax loo xamante ni mooy loolu ko. Eh, man la wëndëng bi. waaw baaw jaxal wëndëng bi. gone gu mu jàpp nga xam ne doo émee te silbaa ni. Hmm. yaay nag bu mag bi indien bi. man dépassé naa jàmbaar jamono ji indien laa. indien waaw nag bu mag bi. mais damay ñëw tuuti damay ñëw tuuti sa combat bi nga jot a jàll. Mm. parce que da jël danga nga jël kii di Bébé Bismi ñëpp ne da ngay wut yoon bu nooy moo tax nga nga nga nga teggi jaayee foofu. Mm. mais ñëpp nag nee nañ bu Bébé bu Bébé Bismi ñëwee taxaw Bébé Bismi bi nga xam. Mm. di nga am combat bu métti te keroog gis nañu combat bi ni nga bëree. Euh, ñu ci bëree nag xàmmewuñ Baba Jaxal Baba Jaxal daw reculer génn dellu si waat Bébé Bismi teg ko lu métti. lan la woon. waaw ku xool combat Baba Jaxal bi nga xam ne. Baba Jaxal saa si su ma arrêté def lu may def ba pare may taxaw jàmbaar ak yow. Mm-hmm. man ooma dara dara lu may ragal si nit. te ooma dara dara lu may ragal si laam dinaa la jox cër nag ñëpp mais su ma nekkee si làmb mm-hmm. damay soobeeku wëndëng laay doon. mais amul nit kuy taxaw sama kanam ma nga xam ne dama lay ragal. ndax fu ma dëkk ragal juddoo ko te samay grand frère duñu ragal kon su ma màggee ñoo fi doon ragal kon damay xaru ma reeni sama bopp. gaynde laa te indien laa indien laay musa doon muy réel bi nag bu mag bi mais keroog combat bi na la mën a demee déglu conseil mais jaxal ak jaxal rek. bilaay conseil yi moo la yóbbee ni nga bëree ko. non làmb moo laaj loolu tey nii da ngay ñëw ni suba nga ñëw lee. est-ce que xaaroon nga Bébé Bismi xeex boobu mu xeex ak yow keroog est-ce que xaaroon nga ko ci combat bi. Bébé Bismi loxoom xam ne dina xeex ak man Bébé Bismi ñemewul. waaw mais la moo tax nga daw kii la génn. daf maa door ma daw génn. waaw. fan la ma dóoree. ah ci biir saako ci biir ci biir géew bi. tegal combat bi nga wan ko gaa yi xool. naka ngeen bëree kon. mais bi ñu arrêté dafa sifflé. Mm-hmm. di ñaan mu daw topp ma ma ba benn jat ba pare ñëwaat ba ñëwaatee ma taxaw mooy may ma dóor ko ñu dóorante jàppante muy hypercule mooy tuur moom palaaka ko ñu daw génn ma tuur ko ko ñu génn saako yi ñëwaat mais foofu génn ñëwaat arbitre joxul kenn avertissement. Mm-hmm. te bu fekkee damaa génn. dañ jox avertissement. Mm-hmm. avertissement bu ñu ma jox si làmb mooy ba arbitre siffle may jat mu topp moom arrière génn. Mm-hmm. mais du dóor la ma daakee. Mm-hmm. te man kenn du ma daak dóor. mais lan moo tax nga bëgg ko. lan moo tax ma bëgg la ñu nag nee na ñu dóor moo metti. ma mbëkk ko yow xam nga ne mbër bu nekkee si làmb deret bi day tàng. mais mbëkk xam nga ne mbëkk bokkul ci làmb. déedéet mbëkk bi est-ce que man maa ko tey. ah xaw ma loolu ah yow mi yow. yow mi wax loolu kay xam nga dama dégg ba man sax jàpp naa loolu. dama jàpp ne dóor it mooy metti xamuloo nooy kii moo tax mais bis mi dóor dama nga xam ne mooy loolu metti na. non yow yaa mën a wax loolu. non yow laa koy laaj lu nga gis laa la dóoram mettul nee naa la kooku loxoom diisul. mais moment bi nga mbëkk yi tayuloo ko kon. non non damaa dóor dóor muy siggi ma doon dem di bët. te dama kaa bëtt yëkkati ko moom moo taxaw si signalé arbitre bi na arbitre taxaw fekk na boobu bët naa xar ko tee ko mun a arbitre arbitre daaw te boo tegee affaire nga toog seetaan ko mais bu signalé woon arbitre day jóg ba si kaw. donc kon nañu yoon. billaahi du bee bis moo may teg te ku dul moom du ma téye. Ah, dinaa gis ku lay téye de. non non. bàyyi ma ñëw ci mbañik. woon nag bee nekk si yoon bi de. dama la andil ku taxaw sa kanam kay. déedéet am naa ne boo gisee mu toog nii war ngaa mën a xam ne sa diggante. man kenn rek kenn rek mooy taxaw sama kanam. muy kan. moo bàyyi mu seet muy sama yaay. ma fobeel nee naa la enjoy baa ni. andil yaa ngi ma doog a neex jox ma loxo <laughs> jox ma def nii yow sama waay nga <laughs> ma gis sa combat yaa yaakaar naa yow tamit nag sa yow bi nga gëjee bëri bi nga bëri ardo ba léegi bëri waatuloo. ajal ajal kii 9 mars ba léegi. loolu yàgg na de ajal mi ko. yàgg na yàggul. Ah. mais ñu gis euh, nga jël Mbañi nga jël ardo boog du moins ñëpp nañu combat xale la. parce que defe naa ne bi bi bi combat bi doo ko taxaw laa fi invité woon sax yéen ñaar ngeen am ay kàddu yu ngeen fi jokkalante mu naan euh, drapeau bu verte bi laa jël see xam nga wax ji bàyyi coow li ba keroog booy fi may ñu la jàmm moom. dëgg la noonu la demee mais làmb la rek man moom ku ma làmb booleel moom moo toog naa fii ne champion gis nga bëri na temps yii passé ba mhm. na combat. bëri nga ak moom. mu amaat combat bëre ba daan ba amaat combat nga toog fi nga toog loolu sax dinaa ci ñëw mais sa diggante kaw yow ak moom ñu ci bari dañ na woon Ardo amul chance parce que Ardo bu ñëwee bu jàkkaarloo bañ ci xeex bi bëre bi yaa ko mën ci lépp mais keroog bi nga ñëwee euh, ñu ci bari dañoo am mbetteel sa diggante seen bëre yi ñaar parce que ñu ci bàyyi nag man man xam man sax du ma ko nëbb ñu ci bàyyi nee nañ keroog pareewuloo woon. daa joxe favori yow moom Ardo nga joxoon favori. waaw bu la neexee nga gisee noonu non parce que ci biir bëre bi li am ci biir bëre bi yëpp laa wax. yaakaar naa maa jiili bi ñoo koy porté mais boo xoolee xam nga ay xale boo boo boo boo ànd ak ñoom ci bi ñuy début ba ci kaw ku ci nekk da nga xam ay point fort ak ay point faible lañ yàgg nañ leen seetaan yàgg nañ leen a ku ci nekk bu yéegee xam ne mënu ko fee daan wala fii dafay rëcc wala fii mën na fee bëri leneen loo xamante ne mën na faa génn mais ñu gis kaw ak yéen ñaar ni ardo bëri ñu ba ci yow lañ ko doon xaar calcul bi non mais ardo mbaru tànk la sa jour maa seet tànk bëri bi la maa fa bëri de ardo doon dindale contre mais man mu téyoon suñ sama bopp combat bi na niil mais man maa doon cherché di bëri. non Cheikh li tax mu xaw ñu jaaxal da nga ñëw sa combat yow ak Jacob. Mhm. nga ñëw ñëpp xamee la xeex nga ñëw xeexuloo ba Jacob jàppuloo doo doo wala ba nga nooy. gis nga kanamu Jacob yow. Jacob daf ma dominé commencement mais fin maa ko dominé maa ko dominé. non fin bi na si combat mu gën a métti si combat te saa mu ko jàppee day daw bëggul jàppan bëggul bëri comme keroog nu mu bëre Papa Boy Djiné gis nga ko. waaw est-ce que bëri na ak man. taxaw xeex. est-ce que bëri na ak jàppante ak bëri xam nga defu ko. loolu xam na mu baax a baax wax jëf fi nekk nii rek. dafa mel ni combat boobu doyuloo ci ba léegi de. non làmb la man man man làmb yu gën a métti si làmb yi maa ko bëri. ay Jacob Bulldozer Ardo Keremasu Boy Bani xam nga sama parcours nag. man loolu dawul sama yaram de. <laughs> kon daal man daal su ma déggee wax ji. Jacob ba day ba léegi dafa mel ni fàttewoo combat boobu yow tamit wax ma yaa waxam rek. waxoo waxi Jacob. ban mais lamb promoteur ma seet ma ak ak keneen ak keneen. mais man yéen da ngeen a bëree. Euh, combat bi jeex. promoteur yi ko doxaat pour ngeen bëriwaat. dox nañ ko ba mu naroon taxaw mu ne du bëri Iba Mar looloo yàq combat bi. ah mu ne as loolu mu wax. nee na Jacob du bëri Ibamaar loolu moo xaw a yàqu mais moom nangoon fa jël ardo mais keroog combat bi ngeen bëgg combat bu neex combat bu yàgg te métti bi ngeen pare ñëpp leen ñëpp a jaajëfal tàccu leen bu baax a baax. non Ouzin man sama combat yëpp métti man sama combat yëpp 14 minutes 15 minutes du yomb mosuma bëri lu yomb képp kuy mër bul xalaat bëri mbañ keer lu yomb man lu yomb moom xaw ma ko maa ngi damay bëri damay xeex lépp dam lépp dam koy def waaw. nga am ci ndam boobaa ak léegi nga toog di xaar xaar bu yàgg bi lan la. non ñu ngi mënoon proposer ay adversaire mais gars yi ñoo nangul quoi promoteur ñu ngi koy démarché de. ñaar à peu près adversaire booy yi moom dégg naa. bëri na de booy naa ne ñemewuñu. seet si nañ ma mag booy dafa bañ. jël kii non booy Dakar du sama moom nag. ah Dakar du sama moom booy Dakar. non mooy gars yi dañ ko doon daaw. Hmm. maa ngi moom ñoo bokk feebar bi. après bu jël Ronald di ñëw. fenee pass promoteur wax na ma ko Abou Ndiassé woo Abou Ndiassé mais dafa bañ. wax na ma na ma ko démb démb démb démb rek. waaw jeex na mais bu nekkee mbañ keer kese nu ma dellu en su góor yàlla de. mais sa diggante kii dama gis combat yi fi mu toll nii bu ngeen nangu woon sa xaw ma yéen ñaa am na ko ci daw dégg naa bu ngeen nangu woon ba ngeen bañ fàtte ko. non suñu pë moo ko doxoon waa jàmbaat ñoo ko doxoon. bëggoon ko dugal ci la. man nangu nangu woon naa mais sama père moom doo bëri kii parce que xamu xamu xamu ko wax dëgg yàlla looloo yàq. affaire mun na xamul baaba jaxar xamul baaba jaxar mais man moom nangu woon naa pare woon naa xam nga ku bëri ay bulldozer ay Jacob Baldé du wax baaba jaxal ngay lii mais ndigal la da am staff ne sa ginnaaw yow kese doo décider sa bopp loolu mooy yàq combat bi. Hmm. wax dëgg mais nag Ouzin yow yow waaw. jamono ji amul mbër bu nekk si làmb. Hmm. wala manager bu nekk si làmb. wala maamu CNG bu nekk si laam xaw ma Baba Diakhal. non mais man xam naa ko de man xam naa ko mais paa bi moom xam naa ko. xam naa ko baax a baax ko booy bi xam naa ko baax. non wax naa ba sonn mais xam nga sa kilifa rek bu nekkee sa ginnaaw. Mhm. mais Baba Diakhal moom ñëpp a xam si làmb mais paa boobu nag doo bëri moom mais bu nekkee man ak man kese pare woon naa bu yàgg. ah yow de nag bu ràmb moom. amul nag yéen dawaay sax maa ngi sax. waaw. <laughs> yow nangu woon nga bëri booy. Ousseyn amul nit ku nekk si làmb xamoo Diakhal te jaxal amul lu muy nekk ci làmb di bàyyi xel nit wala di sóoraale nit. jàmbaar nga nag. sant yàlla sama yaay ma ko def. mais ma koy sant bu baax di ko ñaanal yàlla na fekkee sama jëriñ kon lu may wax sama yaay tax may reyante. Hmm. mais jaxal bi lépp lu nekk ci kanamam da koy fobeere jàll. musul am dara lu muy ragal. c'est que nag gis benn gëm-gëm booy dégager boo xamante nii xam naa ne moom kii moom fi mu toll nii. waaw. billaahi nag laa mm-hmm. sama yaay su may bëre même bu nekkoon Casamance. mu mm-hmm. am combat buy ñëw man maay caat maa koy jëli de Fass Mbao mais fu ma ko jëli ja xam la la may njëkk a wax. Mm-hmm. loo munti def amal fit lépp loo munti def fit a kay may billaahi wallaahi même su may bëree ji sax loolu la may ñaanal lépp loo munti def rek fit la demal eh, looloo nekk si man loolu noonu laay doxee ndax sama yaay mooy sama sëriñ mooy sama lépp. kon du man na ma dem si dara di si ragal kon su ma ragalee loolu noonu ak lu ma wax rek kon billaahi. jaatul nga waxee sax su ma wax sama yaay. ndax man doomu gaynde laa. non dama la dama gis wax yooyu wax bari da nga sama yaay. sama yaay dama gëm sama boobu moom laa dese xaw ma sama papa. moom laa dese moom laa xam. Hmm. maay caat si lépp. moo tax lépp lu ma yem rek sama yaay laa jël te moom lu ma si wax muy yow di kii di keneen ak keneen su ma nee sax évangile sa waa suma jum sax dama leen di dégaase ne suma jun suma jun géej la de nga foofu maaroo la neexul a dindi de <laughs> mais dama gis sa combat yaa dama gis ay promoteur waaw yu ko bëgg ba léegi keroog defe naa ne ñëwoon ngeen fi mais yàlla dogalul euh, ñu jot koo ñu jot koo def mais am na ci promoteur xam te nee na ma boo demee ba yegg ba toog bu la neexee nga woo ma ñoom ñaar bu ñu nangoo bu ñu génnee ma jox leen avance pare nga pour bu jëflante ak moom man maa ngi fi pour non déet bokkuma loolu xam nga nag des fois man lii moo may métti des fois toog wax ne bu avance am ñëwee ma jël nga dem ñu woo la nga dem. Ousseyn 200 millions laay laaj. Ousseyn waaw. kii man ak moom suñu combat ba ko waa jàmbaar di tëgg. moom nangu na magam nangu na. nangu na. magam nangu na jën kere. Mhm. ñu ne xaw ma dañuy xaar seen papa ñëw léegi lii xam nga waxul làmb. waaw. kon lamb des fois ñu woote paa bi des ñu woote maa bi na bu baaxul ñu ne non ah, loolu xaw mais man moom lu ma am mooy lan entraînement lekk ba suur te di nelaw bëre man maa fooyee bëre damaa tarbiwu làmb fu ne dem naa fa di bëre moo tax daraay dara duma ma jaaxal si làmb ak lu mu munti doon nag du daraay dara may jaaxal si làmb mais dama ne waaw Ange kii bu ñu la ko andiloon moment bi ñu toll nii laa wax dama laa ne damaa nekk si sanction mais bu ñu nee aji nañ baaba jaxal ku dul kii ak keneen ak keneen bu ñu ñëwee suñu waree bëree damay bëree moom. tege foofu solo gannaaw léegi yow paa bi nee na woon euh, xamul baaba jaxal baaba jaxal moom gannaaw bëri na fii yàq na fi 16 ak sanctionné nañ ko coow ñu bàyyi na. xam ah, léegi xam na baaba jaxal. Ah? gars yi xam nañ ko léegi nag ñu ñaan waa CNG nag sanction bi na ko yi naka gars yi baal quoi. Mhm. parce que làmb moom mbër. mënoo mhm. nekk suuf di bëre di calculer ay supporter quoi. Mhm. voilà gars yi ñoo am na ñoo am mënoo leen yar quoi àdduna mënoo yar ñëpp loolu la. mais mbër mënul di bëri di calculer supporter. mais bi ma la woowee ne la yàgg Baba Diakhal woo nga paa bi woo nga paa bi ne ko dañ ma invité woo ko. Hmm, na pour nga jël Baba garaawul tool comme ku amul la gën a am lu fi sës. moo fi sës kon gënalu la. ah non kii gënalu la. ñeneen laa gën lii nag. parce man sax kii gënalu ma. barke Sëñ Fallou. kii amul coow. laa ma de.

waaw ñun tam fu ñu jaar dafa metti non fi ngeen jaar moom dese na metti mbër. Hmm. maa ngeen champion quoi mais fi nga jaar at fu ma jaar. Hmm. non loolu bokk bokkul sax wax dëgg yàlla. da nga kaa bëgg a metti. barki sëñ Fall bokkul sax nu ma bëree la non bokkul quoi. gars yi xam nañ. yow ñana ña naa ak bi man bëree naa ak bi laser. sama premier combat maa nañ maa ak bi bëree nañ fii nii Seras. ku daa euh, kii terrain xaw ma Daara la tur xaw ma Seras si ginnaaw Alou Niaye si ginnaaw am na terrain bu fa nekk tournoi. maag hmm. bi la ñoo tey carré final. ñu bëre mi temps ñëwaat ñu bëre mu wër ko noonu gars yi taw dugg si biir tournoi yi. tas laamu ji am benn gaan xaw ma Omar Ndiago lañ koy wax bañ bëree mi ñëw mu ne ko nii. waaw doon nangam taan bëreeg booy bu ndaw bi man tamit ma jaar si nekkoon ko nangam taan bu doon yow tamit doo mu mën doo si def dara lu muy def ngay def. gis ku dul kii ak ñeneen ak ñeneen. jaaxaluñu ma si làmb. affaire bu nekkee kaaroon mbapat man nu ma bëreen mbapat non du naa toog wax ko nii quoi bu nekkee kaaroon mbapat dëgg dëgg. mais léegi yow da nga bëgg wax ne fi nga jaar sa parcours moom bu fa ko dégg. wala du ko xam da dëgg mais jaar jaaru fa. non bokkuñu sax bokkuñu làmb léegi moo làmb moo sooxe sam sa sax wax na ma ko nee na làmb léegi kenn xamul gàmmu goy ngi ni jël na dafa mbër làmb amatul ay coow. waaw mais loolu làmb ju neex la. voilà làmb moo amatul loolu laa moom léegi bu la gars yi boole. a wax booy bi dañ yoon di ko tànn ay lefe-lefe. non non du question dafa ne du question dafa ne sama lamb bi passé mercredi laa ko bëri xoolum fa hmm. la mbër mais gars yi comme xool xam ne kii dafa weex. champion maanaam wiiri daf ne. lamb loolu fa am léegi. mbër la système boobu dafa nga xam nga. mbër la <laughs> ndaanaan la champion la. Mm-hmm. mais maanaam fu may waxee coowu làmb maanaam waxuma maanaam deful dara si làmb. Mm-hmm. xam nga tey jii am na mbëri yu bëri dañuy am ay combat di daan. mais mm-hmm. coow bi maanaam fu ñu toog di coow diw diw diw diw diw foofu laay waxee quoi. non loolu mooy mbëru TikTok loolu mooy mbëru TikTok yi rek. mooy mbëru ñaame majaay rek toog di wax fii wax fee wax fee. comme loolu rek coow rek xam nga Ousseyn. mais jëf la ñu xamee Ousseyn ñun entraînement jëf liggéey. instant ay combat métti la ñu bëri. mais bu ñu neexoon sax du nga nekk loolu mooy mbëru TikTok yi rek. Ouzin mbëru koñ am na. Mhm. mbëru ayse am na. mbëru rukk am na. mbëru dëkk am na. Mhm. ak mbëru xaw ma sax. mbëru dëkk. est-ce nekk la. non ko. mbëru dëkk la. déedéet ah boo fa nee amul coow laa mbëru dëkk man mbëru àdduna la ah. <laughs> te ñoom ñaar laa fi dalaloon parce que combat bi damaa bëgg mu taxaw gannaaw combat bi doon nañ ko dox euh, xaw mu ñu ko siwagul dafagul dara ci làmb fi mu toll nii moom Baba Jaxal moom xam naa ne mbëy ci ba nag bëgg nañoo bëre moom mais ñoom seen combat dafa ñor ndax diggante Medina ak diggante. combat combat bi ñoragul de. Fulba dafa ñor de ba muy ñor papaam daa bañ. non mu seet leneen rek. <laughs> léegi bu ñoree si man rek ñor yi ñor la. dama baax léegi fi mu doon da nga bëgg yaay décidé Baba Diakhal nag dafa goo fi dara Baba Diakhal tooju goo fi sa combat examen bi da nga ko échoué. combat examen bi da ko échoué. kon bu ñëw nga mën a taxaw li naan reculer pour mieux sauter nga nga nga rebondiraat tuuti sax. non mais nee naa ja ok. kii boo jëflantee ak moom est que baax naa si moom. peut-être gars yi nga bi est baax na si yow. loolu tam il faut nga comprendre ko de. Mbagnick nekkul ne xalaat diis ci kaw ci kaw Baba Diakhar nekkul ne mbëru wax ji na bëri nii rek. Mbagnick mais Mbagnick si biir géew si esaat nii nii nii. Mbagnick musul ay tànkam wa maam jëm dara at ku ma mën doo dara. Ousseyn kii amul daraay laamu lu mu ëppee ëppalee. loolu mën na xeex déglu ma wax la waaw déglu ma wax la. waaw loolu mën na toog fii rek fii kilim fii dafa sedd waxoon naa fa aaro sa kanam waaw fii mënuñu wax dara wóor na yonente <laughs> fii dafa sedd mais maa ngi ñaq de mais fi nga toogee la. Ah, kilim bi kon kilim <laughs> kii du daraay làmb lu mooy ëppale du bëre du sañ bi du fit du xeex bi. moom mën na xeex nag loolu man waaye maa yow <laughs> yow caméra bi mooy sa waay ak sa micro man lii lii nii mooy sa waay man fu ma dëkk ak samay nit ñooy sama waay yow lii sa waay. Ah, lii nga yor lii. yàgg nga ma ko wax de yàgg nga ma sànni xeer. voilà kon noonu la demee mais lu ma lay wax. kii du daraay laamu lu mu dafa dis si yow. Hmm. balaa nga ci balaa balaa balaa nga ci jël benn décision waxtaan ak say mbokk ba noppi. loolu moo gën moo yoon sax. waxtaan ak nee naa la man amul daraay laamu li nga xam ne nee nañ ko mu si kanam wëndeeg mu may taareel kenn may taareel si yoon muy sama yaay. du kii ak keneen ak keneen. suñu yaay lañ suñu yaay dugguñ si géew bi tamit ñëpp say ku ku nekk booy génn sa yaay da lay ñaanal. wax laa waxee loolu lii la rek. Ouzin. man saa ma génn ma yëg nag ma yëg nag yaa ngi commencé nekk bandi. <laughs> ayel mi ko lii laa bëgg parce que booy yi. kaa ma la benn affaire nag ci ñoom gis nga ay booy booy yi ay ñoom ay ñoom ay ñoom kii sa ko sama copain bi ay 1 Giga ay ñoom liis Laurent wax ak wax moom dañ ko mën a moom bu ñu waxee ba pare. foofu la gars di waxee ko coow quoi bu ñu waxee ba pare gars xam nañ ko day mobiliser day def. Ousseyn nag maa xamee waaw noonu la ñu yaree waaw ah, yow yow Ousseyn man la ma la gisee si làmb laa gis wala fii c'est la deuxième fois ma gis la wala làmb. waaw loolu am na. voilà kon jeex na. loolu laa loolu laa bañ mu nangu loolu. Ah, làmb lu may jaaxale du sañ-sañ du loolu du dara. noo mais Ousseyn loolu fii moo neex rek. mais bu gaa yi tëjee barrière. Hmm. ba ne jaaral nii sa day jaar nii. Ah. wax jëf kii sànq ba léegi moom la junj loolu. bu ma suulee samay tànk taxaw. <laughs> man nii nii man bu dox si mbedd da ngay xëy da ngay. waaw waaw da ngaa ba dongale nii non. Ousseyn ma ñu bu dox si mbedd Baba Jaxal bu dox si mbedd yéen a essayé kii Baba. Ousseyn damay dox ma dox nit Baba Jaxal kii Baba Jaxal kii mooy Baba Jaxal ma man de foog naa ne Baba Jaxal lu ngande la wala leneen leneen kon ma ñu mu wax man damay dox sa ñu naan kii Zor la mais su ma nekkee si làmb wëndëng bi laay doon wëndëng laa doon doon indien nag bu mag bi taxaw dëgër këcc yee lu ma xam nga ko moom xam na ko keneen ak keneen xam na ko baaw bu duggee si làmb non waxuma su ma nekkee si làmb xam nga yow am nga combat mu fekk ma esaat hmm. mais yow sama combat la fekkul esaat tamit toog nga seetaan hmm. na wala amul hmm. kon bu simbee ko xool baaba nii ak bu ñëwee si làmb du doon benn kon moom bu nee mañi kere ñu tëj barrière barrière kon amul lenn lu nga xam bu ñu tëjee barrière yi mañu kere wala ñu tëj barrière yi baawa jaxal ak mañu jaar moom kii bu leen jàkkaloo yaa ngi moom abi génn seen diggante yow xam nga loolu sax bàyyi ngaa ngaakalu Ouzin ku dul moom sax foo ko fa lay toog dafay dem toog fi taxaw laa ci booy Dakar bi nga xam ne booy dañ ko fi bàyyi booy Dakar ban booyoo ko ñeme bàyyiwul de kenn ñeme ban booyoo ko lii nii niveau yi sax bokk Ouzin man ñu ma bëgg mbëri Ouzin laa solo yaaru mbëri yow mbëru safi la moo la mën a yóbbu fi lii nii quoi ah moom nga sol gars yenn mbëri yenn non non yow daa yaa bëggoon mbëri ak man combat jàmbar bi ñaari promoteur ma woo du caaxaan sax as woo na ma si ba sonn ma ne ko ma ne maa may kilifa. kii nii combat boobu noonu. bii waa jàmbaar ñoom la sopp alxuraan Ousseyn combat boobu noonu ñëpp bëreewu ñoo ñoom ñu man de ñoom ñoom ñu laaj ko ba moom mu ne nangu si lañ ma woo doo ah seeti nañ ma ñekk nee na nangu na moom nee na nee nañ seet nañ mañik mañik nangu na pa eh, magam nangu na mais nee seen papa la xaar xaw ma daa dem dëj xaw ma laan. Mm-hmm. si lañ ma woo doo ko woo ko kon xam nga ne kii moo a yëg noonu loolu ni man. njëkkuma ko ah, as loolu ma wax de wax dëgg yàlla as sono wax na ma. yow gis na sama combat bi yow yow yow ah, gis na sama combat bi passé avant may bëreeg benn bis la maa njëkk a montage ak Ardo. waaw voilà kon xam moom kese lañ ma waxoon. waaw. kon tey ji bu mu wax sax man maa njëkk a yëg lool. as loolu ma wax bokkoon. mais fi mu toll nii gannaaw yi ñaa ñëpp a ngeen xam naa ne promoteur yi fi mu toll. non man <laughs> wax dëgg yàlla. pare naa pare naa ma jël ma bi. mais dama ne fi mu toll nii kii avance bu ñëwoon nga naanee ko café. waaw tàng naa la si dam sax. lekk yi bu suuf tàng naa daa soxla kii bu ñëwoon bu ñëwoon léegi léegi ma ko Ndiaye sama maam soxlawu ma xamuñu ma koy jox waa kaso bi waa camp pénal Rebeuss Cap Manuel Forbe waa Sébikotane Bambey ñëpp ñu nekk ci kaso bi man kaso bee ma ñor. Hmm. ñu fa nekk. <laughs> di gërëm waa sama Ahmed waa camp nekk yëpp waa Derkele waa ma gën samay nit a fa nekk. Hmm. kaso bi samay grand frère. ndax baaba jaxal mënul dem saa ñooñu ñooñoo ma doole ba tey jii nii ñu naan jaxal bi wala ñu naan wëndeg bi. Mhm. ku mel ni Iba Ndaw sama grand frère la yàgg na fa trop moom ak lon amasi. soog nga ma doon expliquer kaw bi. waaw amasi ah, ak euh, sama grand laay laay laay Njaay ñooñu duma leen mës faate ak jàmbaare Paate Cissé Baye Sidi. Mhm. ay buuna wócce ñoom ñëpp ñoo bokk dëkkuwaay. ak ñi nga xam ne ñu ngi ci biir kaso bi dëkk parcelle géejawaay Grand Dakar Yoff Diamaguène guy ga fépp ñi nga xam ne ñu ngi ci biir kaso bi man Baba Diakhal maa leen di ñaanal di ñaan président euh, Macky Sall mhm. da la wax nga atte ñooñ noonu yee waa kaso bi maanaam ñoom dañoo am dañoo wala dañoo war a fondement seen famille nekkaat ci seen bopp nga jël doom jaam ñi tëj leen benn at beeg yooyu noonu damay ñaan en tant que porteur de voix di la ñaan nga maanaam daan ñi nga leen teg nga teg leen ndax man mënu maa dem saa ñooña man waa kaso bi ñoo ma ñor te waa kaso bi ñoo tax may bëre te fu ma toog dinaa leen tudd leen sant ndax ñoom dañ maa bëgg man ma bëgg leen tey ne boo demee campénat billaahi dafa mel ni man maa foofu laa dëkk demee rëbës dafa mel ni foofu laa dëkk mm-hmm. ndax ñoom ñëpp dañ bëgg te yàlla tax moo tax ma bëgg leen di leen ñaanal jàmm nag sama xel ak sama xol ak lépp a ngi si yéen duma leen mës a fàtte ku mel ni sama grand frère Assane Fall borom pare séeréer fari mata duma ko mos sa faate ku mel ne papi sama grand frère xam nga ñi nga xam ne ñëpp ñu ngi foofu dama dama am benn question boo bëggoon dugal. ah ngeen ngeen ngeen tàggatoo waa. non dafa mel ni yaa ngi gërëm de mu toll nii. waa léegi dugal ñu dem si. lan moo la gën a neex ci làmb. làmb. Mhm. di nga jot a bëri quoi. yan moom la neex. waaw ma neex na wax dëgg yàlla. waaw hmm. amagoo combat bi ban combat moo la gën a neex sa làmb yëpp. non amaguma ko man balaa ma am lu ma neex si làmb ma bëre ba am yow sama yaay maa xam mu ñëw gane si. yàlla loolu laa maanaam looloo nekk li nga xam ne su ma ko amee sama àdduna dina nekk li nga xam ne lu ma neex la su ma demee si làmb wala ma tekki si dara sama yaay du ko fekkee yàlla mu ma am. yàlla looloo a nekk li nga xam ne moo moom laay moo nekk sama mbébét daal mu nga xam ne. moom laa bëgg. teral sama yaay tàggatoo waale ñu ngi suñ jegee di nuyu fu ma dëkk. Hmm. samsam un deux trois dama leen mës a fàtte. yaa ndax baaba jaxal doomu samsam la. di nuyu waa Asegna ku mel ne ñoom papa bu Asegna ak boo yooyu waa géej waa marché bu bees waa yëmbal buun waa Arafat loobe xam waa Medina Fass. Hmm. ay see Fass Farba naataange xam nga ñëpp xam man baaba jaxal ma leen di sant Farba. waa Ramdaan du ma leen mës a fàtte ah, waa Jaksaaw waa Teso sûrement ñu fa nekk mafia CFA bi waa Mokal Numbaara mafia Faramareel bi waa Wakisul jàmbaar yooyu noonu boo yooyu noonu man Baba Jaxa du ma leen mës a fàtte yaa ndax sama laamu dañ si defar ay tisat ñeneen ak ñeneen waa VIP fi nga xam ne ñoo dooleel Baba Jaxal ba tey ñu naan Baba Jaxal VIP jàmbaar yooyu nekk foofu di nuyuwaat waa kaso bi du ma leen mës a fàtte di nuyu sama benn grand frère seen business Sadibou seen day jàpp si ba Jaxal bu baax a baax di wax waa Sam Sam nañ ko ñëw jàppale ndax xam mu ngi yëngu yi nga xam ne di jaay ay téléphone ak yooyu noonu noonu mu ngi si ay frigo ak lépp ñu ñoo jàpp si ndax li ngay maanaam li ngay xamoo dàq mu jëm nga dàq mu jëm si kër xam di nuyu sama yaay booy fàddaabo waa Suisse Gold gis naa ñuy jàppe si Baba Jaxal di nuyu ñëpp ku lim da ngay jum mm. sama grand nag bébé sey Baye Fall bi taalibe Seera Fall bi dama la mos a fàtte yaa ngi siy jàpp di nuyu waa Salba nag ñooñu tamit dama leen surtout sama écrit école de Jalle Birame Thior di nuyu waa 100 pour cent Thiaroye Samsam bi di nuyu suñu grand frère suñu tedefil muy ñàkk jariñu mooy suñu mbër mu mag. léegi da ngeen boole écrit. non maanaam Thiaroye Samsam bi fa nekk mbër mu mag combat nag Jackson. Jackson du dara. bu dugg ci loolu sax. déggoo du dara di ñaan ñàkk jariñu ma koy ñaana jaamu wéeru wéer le si laamu jii nii dem nag duñ ko si may dara ñun waa sam-sam caare jàmmagan bi ndax laamu suñu laamu la ñu ñoo ko bëggal suñu bopp waa Géejawaay dañuy xaar bu bis baa bu wën ñëwee ak indien yi rek billaahi waa Géejawaay dañuy xaar a di ñaanal jàmm surtout ma caare sam-sam bi cent pour cent bi di nuyu waa yëmbal ku mel samay xarit ah euh, caatu yëmbal Omar Seras ak samay grand frère ak sama coach Aziz mi nga xam ne mooy jàngal xeex ak coach Pape suñu coach laay ñoom ñëpp dañ leen faate di ñaanal nag booy am combat yal na leen yàlla may ndam ku caatu sam-sam mm-hmm. yàlla may ndam moom caatu sam-sam man baaba jaxal yaa sa mag sa xarit sa lépp maa lay ñaanal ndam ju rëy ni Ziza 2 ak ñëpp ñi nga xam ne am nañ combat nekk ci équipe bi mais ñaq le 25 décembre du ma la si may dara yow ak waa Teso bi waaw wasalaam Mbagnick kàddu yu mujj. kàddu ñu ngi kii bal Gaye di encouragé suñu grand Gris Bordeaux. Mhm. ne ko waa Medina yëpp kontaan nañu wax dëgg yàlla. Mhm. bëre 14 minutes arène nationale. Mhm. xeex bëre bëre lu neex. ak temps bi mu toog yëpp bëriwul. ak temps bi mu toog yëpp yi di toog si mbedd mi naan bi mooy dernier chance loolu ñun waa Medina rafetluñ loolu. parce que Gris Bordeaux champion la quoi. joxe cër dafa baax gars yi nañ ko jox cër. Medina Gris moo fi mbër tedd fii. Gris ma suñu tëddefil ñun ñëpp. Mhm. wax dëgg yàlla ñu ngi koy encouragé bu baax a baax. Euh, ci mbedd bi di seen dañ ko encouragé mhm. parce que champion la. nga gën a jàppaat ñu ñu ngi koy man na ma Gris mbañ gi nee nga gën a jàppaat ñu si ginnaawam. Mhm. waaw Ouzin di nuyu fu mu dëkk muy Casamance. baal eh, kii bi dafay tàng deret bi day tàng. lépp lu muy lépp lu muy def rek day bëgg a agressé. kii la gën a sedd sedd dafa ndànk ba génn fii ba génnee fii nga xam ne lépp dëgg la. kon de ñu nuyu Ameth naa bu baax a baax. Mhm. fi ma dëkk Dames Rue 23 di nuyu bu baax a baax. groupe waa Sakato dam Derkele Cité Marine waa Febelaas xaar yàlla Grand Yoff Kër Ndiaye loo ma jugee. Mhm. di ñaanal maire Pape Sow waa Tëngéej di ñaanal ñëpp sama mag Dieng maa ngi koy ñaan nag gars yi yàlla nga ko jënd am combat boobu yow doo wax si loolu. jën jën kay man. démb rek maa ngi ci waxtaan ak jili combat yi fi nekk neex dafa bàyyi trop. ñu koy ñaanal mu am combat. ah waaw mais jën ku muy yóotu nag moo tax waa jën ku muy yóotu si ku leen moom si ta lay kooku yalmin bi la. koo koy bëree. di teg di teg kaar si buntu këram supporter quoi bër gëmal sa bopp yaa ngi baab ay supporter de. yow kooku di sama champion donc bul baab ay supporter day yuut ay supporter si ta fu mu dëkk. jàmm gën man fa laa dëkk. mais buñ sam sam sam sam fu mu nekk. sam sam jàmm gën ah sama quarante ngi nii ko jàmm gën nga dëkk waaw quarante ngi nii ku bëreeg muur anta ngay gis ku bëreeg muur anta bëreeg maar bëreeg la la waaw léegi jàmm gën si Kamba waaw kon jeex na. non day jéem a muuroo quoi comprendre. booy voté xoolal voté mooy nii ñi def si sam sam trois mais kon man jàmm nga laa teg Siteu suñu mbër bu mag la. waaw dëgg la jéen mu koy yóotu. mu bëgg waxee mooy maanaam jéen jéen dafa teg ba Siteu. foofu laay waxee ko laay waxee quoi. barki yónent bi mosuñu toog ba jéen tudd sa mbër jéen gars yi xamee nga sax loolu. barki alxuraan kër laa la waat mosul tudd sa mbër. waaw ay ñoom Ama Baldé lay. jéen yaa ngi tudd mbër yaa ngi naa tudd Siteu wax dëgg yàlla yéen seen famille Siteu moo leen gënal. non non non déedéet bu wax loolu soñoon Siteu la ñuy bëreel. barki sëñ Fall loolu amul eh, te yàlla min bi mooy loolu. mais nag yéen ñaar yéen ñaar moom bu ko fi jógee xam naa ne promoteur moom dañ leen woo que foo ngeen parce que foo mu tëjee léegi. déggoo ma ñoom nañ bàyyi yàlla mi du tëdd du tëdd mbër barke du ma waat di fen. a a ay supporter waaw ay non da ngay sa bopp. non déedéet am nga tur booy nga gëmal bopp bul soo ñëw di ay léegi loolu la samay la. jéen ak bu ñu waree bëri dañuy bëri rek est-ce que nga gis fu jéen taxee nañ ma jox Siteu jéen du wax sax hmm. mais combat bu dafa bëri coow gaa yi si wax rek. kooku bu sañoon jéen bu sañoon. lu mu ay Ama Baldé ñi ñoo lay teg bët quoi mais moom surtout ay génération lañ. xool bu ñu waree bëri rek nañ bëri. bu ñu waree bëri rek nañ bëri. mais àggagu fa quoi àggagul si yalmin bi moo tax. ku jugee si muuru ànda. mara booy wal doo wax ni Ousseyn nga taxaw di seeraan ni rek. wala nga ragal booy bi ku bëri bëri muuru ànda. ah te tamit gars yi seen bër lañ xool rek. Eh, eh, da ngay yor da ngay wax da ngay yor da ngay wax si yoon ni. waxal la nga eh, wax non ñun ñu kenn kawe lañu visé. ñooñu lañu jéem buy visé ñooñu lay visé. man nag ñaata personne laa gis yoo xam te jaadu na. waaw yow ak Yékini Junior. yow guy gi. yow jaadu na. waaw loolu moom nangu ko. booy guy gi. mais du Siteu. non bu tudd Siteu quoi dafa mel ni combat na dugg na génn ci lii ma loolu. waaw yow kooku Siteu kooku bu jàppee ndaama loolu noonu kooku di mel ni karem bu ko Siteu jàppee da tegee nee waaw baax na man non non man sama mag la dañuy déggante téléphone daf may conseillé Siteu daje ñëw na ba sama kër yaay woo ma alors jaxal foo ne man ko maay mu ñëw mu ne gis naa ni booy bëre li lay topp man ko waa mu ma bu la kenn yaakamtiloo nga jël li nga xam ne bokkul sa yaram. maanaam dégg nga fu muy waxee. Mm-hmm. bu la kenn yaakamtiloo maanaam nga jël li nga xam ne bokkul sa yaram mu yàq sa carrière. Mm-hmm. kon xam nga kooku sama grand la daf may conseillé tamit te mbiram samay mbir la. Mm. di nuyu tarkindaa yooyu yëpp te ñoo bokk dëkkuwaay fu ñu dëkk. gis na sànce sànce bu mu amoon bu mu doon liggéey. non gis na sànce bu mu amoon di di ko defar xaritam Fodé. sama kër yaa ngi nii boo defee ne boo jaadee foofu la. moom si ta fu muy bu bëree fu muy dem kër yaayam. Mm. sama kër yaayam nii télé maam jaar nga génn si télé bi nii si kër yaayam a ngi foofu. ñoo bokk dëkkuwaay. ñoo bokk dëkkuwaay sama mag la. mais kon amaana tamit xam nga la mais waroo tam kii quoi bul waxee noonu loolu su wax. sama champion la si daa mun jéen naa kanam na bëre ba si kanam. loolu ay waxu mbër la rek. àggagu fa loolu yaa ko yaa ko wax. ñu ngi may bi jeex na. ñun ponkal lañ soxla. <laughs> ñu may signaler sama dëkk. muy Casamance. Mhm. fi dëkk di nuyu waa Koñaara. waa Sédhiou si Mbani Balante si Mbani Birasou. waa Tanaaf ñoom Baata Massaria. émission bi daf koy gërëm de. ah moom jaaxal de. mu demee nii nee la nee la man du ma mbëru dëkk. waaw ah, day sàkkatoo la mën naa leen dëkk boo dëkk loolu ay waxu rek. Ouzin ku dëkk maintenant derkel man double nationalité la. Ouzin nee ko man du ma mbëru man double nationalité man du ma mbëru baax bàyyi muuroo bi bàyyi. man mbëru àdduna la. su ma la ko waxee xam nga. nan nga ñii xam nañ waa léegi coojowul si mbër naas yow mbëru lépp nga léegi baa ma sant sama dëkk quoi. mënumaa dem sant non sant moo lii muy Casamance ku ñaara ndax ma looloo ma ñor. sama dëkk di nuyu sama mbokk balante yi. sama mbokk procès yi sama mafia bi. continué waaw di nuyu leen ñu ñëpp di nuyu waa Diofior. Mhm. xam nga waa Morola waa Noto waa Mbora. waa Taïba ñun ñëpp ma leen di nuyu fu nga xam ne. waaw Diofior amoo ko dara ñëpp. foog la séeréer ma xëy simnaanu gidmaanu. Diofior boo gisee may nuyu Diofior. man doomu séeréer laa. sama deuxième combat ba muy taxaw. doomu séeréer damay lakk séeréer man lakkat ma séeréer mais damaa bokk ci man balanta pire laa si ndey ak si baay. gaynde c'est que nag mbëy dañuy yàgg bëggante mais ku ci nekk toog turkam di di di ñoddi mais xam naa lii moom bu ma fi jógee dinaa dina woo. billaahi kii bu lekkee avance bi mu xam ne du ëmbee te sil baa kii bu lekkee avance yi jën boo lekkee mañik boo lekkee avance bi dama soxla jën waa léegi xam man kii da man waroon kii ah? man jën kere sa moom tax a jóg non jën yaa ko mën yaa ko mën non jën yaa ko bu dool maa ngi di ah, daje hmm? beneen yoon <laughs> ak yeneen mbër ñi xam naa duñ doyal ah, dina la wax loo jëf